il a mm-hmm. parfaitement raison mm-hmm. mais benn instant politique bi dafa dem ba moom ñu ah. et moi j'ai fait le reproche bu yàgg boobu xalaatuma woon sax ne dinaa nekk ci défense d'intérêt de personne et tout mas am nañ client boo xam ne c'était mon prof de philo mm-hmm. mas naa leen ne les intellectuels pour vous ne vous intéressez pas à vos entreprises surtout les bonnes entreprises moomelu Sénégal donc il faut s'impliquer doo toog rek ba jour boo gisee sa benn ba bafoué nga jóg casse casse casse donc il faut s'y intéresser très tôt c'est vrai mm-hmm. donc je lui donne raison sur ça mm-hmm. mais comme dañu demoon ba politique bi daf ñu moom dañ leen di seetaan bàyyee leen yëf bi tant que ça marché ngeen xuloo ñu ñëw àtte tuuti ñu ñëw wax mais bu ñu demee ba renvoyer lu toll ni élection loolu y avait de quoi se lever. jóg nañu à temps. donc on n'est pas obnubilé que sur la dat la preuve il y les plus les plus hauts gradés de ce pays dans cet art sunu euh, élection mhm. donc ñu ngi xool mais quand bu amee loo nga xam ne dañ ko war a respecter su fekkee conseil constitutionnel wax na lan moo tax ñun benn instant dañ doon insister pour conseil constitutionnel génn. Mhm. parce que le droit doit être dit de tout temps et doit mm. être respecté donc suñu ñu leen génnewee ñu wax il faut que ñu nekk ci cadre boobu te Sénégal li koy may jàmm tant que élection bi mi ngi doon am normalement yeneen yi yëpp après les gens se plaignent c'est vrai est-ce que vous êtes allé aussi vers la société civile pour vous plaindre parce que tout est là pour réguler donc bu demee nag ba nga xam ne jéyee ju rëy mooy lay jur on se lève on dit non il faut respecter d'abord ce qu'il y a à respecter et puis le reste et dans ce timing nag dugg ci biir réguler li ñuy réguler yépp